mbokki Sénégal ak li ko wër dénk leen ma seeni nopp ma wax leen place bi ñépp di wër côté mbaaru yàpp ci wetu jàkka ji ngeen fekk fa Talla ak Ibrahima Sow ñuy ay ndaw yu xereñ ci wàllu ñaw mokkal seen métier ba yematuñ ci kenn ñu ne mbokk mi Talla ak Ibrahima boo leen seetee lépp loo bëgg ci xeeti ñaw yu bees rek ñu defal la lu mucc ayib lépp loo taamu ci ñaw muy yu góor wala yu jigéen boo gisee ak Talla ak Ibrahima sa xol seet ñu ne ñii ñoo lay ñawal ñaw yu méngoog jamono yoo xam ne foo ko sole ñu ko prêt couleur simple xeetu ñaw bu ci mënti nekk rek mbokk mi seet si leen Talla ak Ibrahima ñoom dañuy ñaw ay wàllu ñaw jigéen crop top yu méngoog jamono taay baas ba ci taay maan ay grand bubb yoo xam ne nii fii rekk nga ko mën a gisee ñu ne bu dee ñawu góor nag Talla Ibrahima ñoo ci teg loxo ay ensemble yu tegu ci temps ay yére yu sem ba noppi foo ko sol ñu laaj la ñu ne booy def nag ku ñu ne waaja la nga ne du moom waaja dana la romb te la mu yor ci jariñ daw leen gaaw seeti waa sant yàlla couture fekk fa Tall ak Ibrahima Sow jëflanteeg yéen ci na mu gën a rafete na ngeen ko gën a bëggee waaye ci na mu gën a naayse ak ay surprise yu méngoog jamono boo bëggee jokkoo ak ñoom nag mbokk mi da leen di woo ci 77 ci sant yàlla Couture Tall Ibrahima Sow ci ay ñaw yu méngoog jamono waaye yu dëppoog seen bëgg